ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza najabaahu sëriñ Mor Anta Sali da koo joxoon nijaayam sëriñ Bousso bi sëriñ Bousso bi moo ko dalal waaye bi mu ko dalee da koo joxaat nijaayam muy sëriñ Mbàkke Ndumbe mi bokk ak maam maam maam maam astawaalu ndey ak baay moo ko jàngal alxuraan ba mu xaw a sori mu génn àdduna bi mu génn àdduna mu dellusiwaat nag ci loxol sëriñ Mor Anta Sali foofu nag la alxuraan foofu itam la tàmbalee njàngum xam-xam donte nag jaar na ci ñeneen ñu bëri. bi muy am fukki at la fay dem waaye mujj na sax euh, di tàggatu ci loolu léeg-léeg mu rëcc maam jaara dem làqutu foo xam ne fii am na garab gu fa ne ba fi ne boo demee da ngeen ko fa gis dee na waaye bant ba ma nga fa bu ngeen demee foofu la daan làqu ci daw bu guddee muy jéem loolu ko ndeyam di jàngal mu di ko jéem bu bu mënut lépp di jéem a julli di jéem a tari alxuraan la mu ci xam. di def ay salaatu ala nabi lam ci xam ba dañ ba ba ñu koy jëli ci guddi gi léeg-léeg mu réer leen duñu xam fu mu ne lool ci la nekk nekk ci. dogu gi nga xam ne am na ko it ba mu ko tàmbalee yàgg na ndax bu ngeen gisee gëstu kër yi rek li koy tegtale bari na bokk na ci com ji nga xam ne yàgg na ko am na ko jëkk ba mu nekk gone la ko tàmbalee doy na sëkk misaal bi fi waajuram di jógee Mamour Anta Sali nekkoon yi bu mag gis ngeen kiimtaan yu bari yi defoon ci dëj ba rek mooy bi nga xamante ni ñëw nañ. ngir di ko jaale si ak bëgg koo gën a dénk buur bi nga xam ne moo fa nekkoon boobu bëggoon mu jegeeg moom ak yu am yu ñu sakkoon ci moom xam ngeen ne loolu bari na ko ne yoo xam ne tey boo ko waxoon boo leen ko waxoon surtout ndaw ku muy doog a dugg ci dara ci la gàntu woon loolu kon day mel na dogo gi mu am ba mu ko tàmbalee yàgg na ci ngoneem la ko tàmbalee lu baree bari ci ndawam la ko tàmbalee lu baree bari nee naa la taarif taarif na boobu ñaar fukki at am taarif na téere yu am njëriñ daw auzu billah bismillah inna waliyallah maa ngi sant yàlla mi fi mësta jóg te du fi jóg ba mukk yàlla na yàlla defal xéewal yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy sangu buur yépp ak seeni ndaw di sangu góor ñee jigéen ñi yàlla na yàlla defal xéewal ay ñoñam ak saxaabaam yi nga xam ne dañ nañu ci gépp doyadi ginnaaw loolu bataaxal bii ngi jëm ci sàmbalaw be buurab jolof jóge ci ahmadu ibnu muhammad al tey jaam bu doyloo boroomam maa ngi lay nuyu nuyoo ba gën a mat te gën a rafet te di la xamal ne sa ndaw li agsi na te jottali na ma sa bataaxal nga di ma ci nuyu tey sàkku ci man ay dénkaan loolu tax ma bind la lii di la ci laabiire xamal ne kat nguuruk àdduna gii nga yor daa toxoo ci ñeneen ñu mel ne yow soog ñëw ci say loxo te noonu it lay tuxoo bis ci say loxo dem ci yeneen loxo àdduna nag léeg-léeg mu far la ci sa kawi noon léeg léegi it mën naa faral say noon moo tax tey bu la reeloo ëllëg mën na laa jooyloo kon ree gi mu lay reeloo bu mu la nax ndax àdduna day ware te mën naa walbatiku ci lu gaaw ba wan la ginnaaw kon farlul ci taxawu néew ji doole yi ak way ñàkk ñi te nga moytu jëng wala tooñ ngir tooñ moom rëccu rekk a ci mujj te képp ku jëng danga nga bul fàtte mukk ne nguur gi nga yor tey ba xéewal yi wër la yaa ngi ci jot ginnaaw bi ko dee jëlee ci loxo yi ñeneen ñu la fi jiitu woon jox la ko kon xamal ne bis xeewal yooyu dinañu bawoo fi yow dem ci say moroom kon na nga farlu ci li lay jariñ àdduna ak alaaxira bala laa xéewal yee dëddu walla yow nga di leen wan ginnaaw ndénkaan lii nag soo ko jëfee jariñu soo ko deful nag fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun al boppam ci njàngu xam-xam mooy moom benn mer rek la ma sa am pëstéef boo xam ni lu muy dugg lu nekk da ciy dugg ba jeex takk noonu noon noon noonu la doon noonu la doon jànge xam-xam dana ba Bachir de nettali nee na ci ak farloom ku ñu daa wax Balla Maam Touré rek moo ko xawoon a jege ci farlu waaye nee sëriñ bi nee na dama ko gënoon a sàmm maanaam sàmm ak wattandiku ba tax da googu wet dama ci doon roy dañu ci war a jànge mooy xam ni nit ki bu tolloo ci jàng maanaam daa war a waajal boppam waaye la waaja waaja waajal boppam xam-xam ba itam benn fànn itam boo mu ko boo ko sàggan surtout fànnu diine fexe ba góorgóorlu ba daje bala ngaa toog na ko sëñ bi waxee fexe ba am xam-xam bala ngaa toog ba nit ñi di la wër di la laaj te fekk boobu waajaloo sa bopp ñaareel ba itam sàkku xam-xam itam ki koy war a def dafa am ay jikko yoo xam ne ni sàkku xam-xam daf koo laaj du caageeru nit ki dafa war a jàng rek ngir xam rek mu yem foofa waaye dafa war a ni ngay jànge xam noonu nga war a jànge pratique li ngay jàng loolu moo tax mu joxe misaal boobu ci ak sàmmoom koo xam ne nii kooku muy wax rawu xëy na gënul ko noonu la ci njàng waaye nag moo ko gënoon a sàmm ba mu daa ko ci roy taxawaay bi xam-xam am ak lislaam ci Mauritanie taxawaay la bu mag doy na sëkk misaal ci loolu Cheikh Ahmadou Bamba li nga xam ne mooy ay mutamimaatam mooy liy mott li xam-xamam xam nga boo jàngee yi ngay njëkk a tàmbalee fiq tasawuf naxu ak yu mel noonu boo demee ba xaw a géeju ci yooyu baax na nga tëjee ko yeneen xam-xam yi nga xam ne ay alaat la ay jumtukaay la yoo xam ne ci ngay mottalee si xam-xam aruut lu mel ne fannul balaaxa ci lim tënko muy bayaan maani ak badia lu mel ni mantiq lu mel ni usulu fiq mu tamimaat yi nga xam ne ci li gën a jafe ci jàng la Serigne Touba mi ngi ko jële woon ci benn borom xam-xam boo xam ne loolu misaal la mu wér daan wax Mouhamad def naa Ibnul Karim euh, al Fadili ad Daymani nekkoon ku bari woon xam-xam daana faral nekk Sénégal lu bari sax ci dëkk bu ñuy wax Njaañ kooku moo jàngal Serigne Touba ay mu loolu misaal la ci li ma la doon jox léegi nga xam ne kon day mel ne xam-xamu fa jële ci ñoom lu bari bari niki noonu ba tey beneen xam-xam bi ci des nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf it daanañ sukkandiku ci ñoom lu bari bari Euh, misaal mi ci ëpp solo it manes ne ne mara sëñ Tuubaa fi mu daan dellu ci taalifam yu bari surtout ci tasawuf nag laa jàpp naa ne ci kilifa diine yu nekk murten lay doon misaal ki nga xam ne moo gën a mag ci ki mu daan dellu ci taalifi tasawufam yu bari bari nga xam ne sëñ Tuubaa boole na ko ci ñi nga xam ne nee na ci ay sëriñam lañ bokk mooy Cheikh Mamadou Jadaali nekkoon borom xam-xam ak daymaan yàgg na doon te fekkante wut ak sëñ bi ci jamono waaye li mu bind bàyyee fi sëñ bi liggéey na ci lu bare bari masaalikul jinaan bi mi ngi ko way ci téere boo xam ne xaatimatu tasawuf la tudd te Cheikh Modou Yadaali moo ko taalif nekkoon ku baax ak yeneen yu bare bari boo seetloo zahabu ibris Cheikh Modou euh, tafsir la bu am solo sëñ Tuubaa dana koy tudd lu bare bari summa min az-zahabi qad axastu fawaidan lahu biha atmamtu tudd wax na ko ci masaalikul jinaan zahab googu mi ngi ko jële loolu loolu mu ci way mi ngi ko jëlee ci téereb zahab iblis cheikh modi daal ñoo ko def ak yeneen yu bëree bëri ba ci aqida tasaw aqida muy pas-pas tawxid taalif na ci way yoo xamante ni euh, wesar wa mën naa ne cosaan ci cheikh modi daal googu lu jóge donte sax ci sanuusi mooy cosaan fa mu jóge waaye jaar na ci cheikh modi daal moom kon liggéey na leen bu baax a baax bari na boo li doon masalik jinaan da nga ci gis lu bëree bëri ci lu mel noonu lakin iza zakartu qaala bi damir farajiun ila al ghazali shahir Euh, waxee je ma zakartu lafza qultu fa min ma lafza na ba ci li ma la wax léegi summa min azahabi qad axastu fawaidan kon sëñ Tuba daana dellu ci ñoom lu bari bari comme ni ñu ko waxee ñoom yi gën a bari ci ñu daan taalifé ci tasawuf surtout foofu la daan jóge ci Murtani muy taalif yi nga xam ne Cheikh leen fàtte ne Murtani la dëkk donte fi dëkk ci Murtani sori na ba léegi ñu bari ci Mali lañ ko boole ci frontière Murtani ak Mali la ci xabila bu ñu wax kunta bu bokk ci xabaayil murtani ci la bokk waaye nag dafa sori tuuti fu ñu wax euh, tund wuñ euh, fu ñu daan wax azawaat foofu lañ dëkkee doomam jan doomam ji fi bàyyi woon dañ ko wax Cheikh Mahamadul Xalifa taalif na lu bare bari moo taalif talaayif wa talaayit moo taalif nafxu tib kunuuz yooyu nga gis yëpp sëñ Tuubaa di ci dellu waaye ñoom ñoo ñoo ko taal ñoom ñoom ñoo ko taalif sëñ Tuubaa kon jël na ci seen xam-xam ñoom lu bari bari liggéeyaat ko kon loolu lépp day dellu ci seen xam-xam ñoom dana dellu ci jokkaloo gu njàgg jokkaloo ñoom ginnaaw bi nga xam ne jàngee na ci ñoom kon daal loolu nag alhamdulilah mi ngi continuer di am ba léegi ni ko maam yi daan defee ak bàyyi njaboot gi ba léegi ñu ngi ñu ngi koy defee na ndax mënees na ne ëpp ci njabooti këri diine yi nga xam ne mi ngi fii ci Sénégal mënees na ne foofa la ñuy la ñuy la ñuy foofa la seen kii di jóge ña nga fay jànge ba léegi bu dee ci tasawuf ñu ko doon alhamdulilah mi ngi am ba léegi tarixa murid yi xam ngeen ne jokkoolu naag foofu lool bari nañ taalib yu fa nekk ni ko doon ba tey tarixa yeneen yi fi nekk xaadir yi ci senegal mën naa ne xaaj bi ci Murtani am moom mënees na ne moo ci ëpp doole mooy alfadil yi ahli Cheikh Saad Abihi mën naa ni li ëpp ci xaaj bi nekk ci Sénégal ñoon ñooy seeni sëriñ muy waa Nimjaat Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Saad ibn Abihi bu dee tariqa tijaani yi nikk noonu euh, yi bi nekk senegal yi mënees na ne ni mu jokkaloog ba nekk Murtani am na doole lool dëgg la am nañu taalibe ma tijaani Sénégal seeni cosaan am nañ silsila bu am doole boo xam ne ci seen silsila yi bokk ñu ko wax dafa am ku ñu wax Cheikh Ahmadul Haafis al Alawi borom xam-xam loon bu mag ci Mauritanie bokk na ci ñi nga xam ne gisante woon nañu ak Seydi Ahmad At-Tijani jëloon ci moom Cheikh Ahmadul Haafis moomu euh, wérdu yu moo ko woon moo ngi rëkk ci Mauritanie waaye ñu bare bari dellu nañ ci moom fii ku mel ne Sidi Hadj ak ñu bare bari ni ko doon ba tey El Hadj Abdoulaye Niass. sëriñ bi moom xam nga ab jàngalekat la jàngalekat itam boo xam ne itam bu. compétent jàngalekat bu mën a jàngale day xool ay ñamay jàngal lañu soxla mu jo mu seet nan lañ nan la mën a gaaw a dugge ci moom mu joxe leen ko noona loolu mooy njaal weeru téere yi nga xam ne moom la jëkk taalif ndax lu mel ne Mawaahibul Quddus ab téere la fi mu nekkoon boo xam ne bu yàggoon la di Ummul Barahin bu imaamu Sanusi def muy téere boo xam ne mi ngi jëm ci wàllu tawhid waaye muy téere bu xaw a jafe ndax philosophie la ci philosophie islamique mu tënk ko nag wayaat ko ndax way moo gën a neex a mokkal leera laalat ko itam ba mu leer lool foofu la tàmbalee te xam nga téere boobu kon mi ngi ko def ci nekku sëñ Mor Anta Sali dañu wax ne sëñ Mor Anta am na ñu ngi ko jàngal ci seen ci ak njabootam kon foofu la tàmbalee loolu nag xëy na mooy la ñor maanaam téere bi téere bi nga ko gis da ngay gis ni kii téere bi togg gu ñor la am na leneen lu ko jiitu ndax kenn ko nekk balaa nga àgg ci ñor nag foo ko am ay essais yu ko jiitu yu baree baree bari am na téere bi ñuy wax bidaayatul hidaaya bi imaamu sa bi imaamu bi imaam Xasaali moom it ci wàllu tasawuf la ci téere yi njëkk a taarif la.